Talla Ndiaye tey la dimanche 3 février Talla Ndiaye daan naa ko wax bu ko jaawalee kon Fallou eh Fallou seen ca Brésil waaye Saliou Faye mu nga Argentine ndeysaan doon naa ko wax Talla tey la 3 février Talla Ndiaye. lii grand combat la. ndeysaan diggante Bour Sine. Ah. ngeen jàkkaarloog moom jóge Bawal. ndeysaan Mama Lamine féete gos. jóge Lamsar. gën si Kambaaw. ñu ngay lewaatoo di wërën tey doxe wet. eh Talla Ndiaye. Talla ñaari mbërë ngi. ndeysaan. Talla lii jant jaawale Talla. Saliou Faye nu eh xeex. Saliou Faye borom marché Tilène. bul jaawale lii combat ngi muy nuyu waa Fissel Mbaraan di nuyu waa Mbaraan yëpp ndeysaan taala Saliou Faye ma jox lii ma sol tey waa géej way nuyu naa leen nuyu naa waa Pikine nuyu naa waa Golf waa Parcelles waa Dakar Plateau xeex ñu ngay xeex dinañu xeex de ñaar ñu ñime duur mu daanu Mama Lamine ak Bour Sine Mama Bour Sine Buur Sine Ba duñ la dóor daanu Buur Sine Ba duñ la daanu yee Mama Lamine Mama Lamine dina ko daan lan ko. la ilaha illallah yee Talla Ndiaye kaay.